di nit ku baax di jëfkat lu baax ñoo ngi koy saa ak mbooleem ku mu àndal wasalaamaaleykum jërë ngeen jëf ok jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf macha allah bëgguñu woon dagg dagg njàng mi waaye waxtu wee tax am nañ mbégte lool te it loolu suñu borom naan wajilat xulubuhum nit ñi moom seen xol tooy na macha allah ñu ngi lay sant bu baax a baax jóge ba saint yi ngir barkeelu alxuraanu karim loolu himma aaliya la yàlla suñ borom fay la bépp jéego boo fi def ngir alxuraanul karim mu am loo xam ni dafa mat di préciser di leeral mooy importance bi nga xamante ni daara am na ko ci Sénégal fii ñi fi tudd ñëpp seen métier ci xel mu wala ci waxi olof mën naa am mun nga ne métier na moo xamante ni nit sañ na koo xeeb bu dee xëy na jaar nga ci yenn écoles yi waaye toujours rek nitu daara référence la maanaam nitu daara li mu xamul mooy toog yaafus kii di jaay mbuus kii di jaay ndawal ñooñ da wóor ni lenn rek mooy seen yitte mooy ñu am loo xamante ni wala tansa nasibaka mina dunya la mooy liggéey lew bañ a xeep bañ a sonal kenn loolu yi mooy seen yitte moo taxit nag ñii dañ leen war di wane wane ni ñii ñooy référence ndax Sénégal économie réew mi bu accès fii doomu daara yi waxuma 100 pour cent de mais bu ñu amul 90 pour cent yi la cay rax du bari te loolu lépp barkeb alxuraanu karim la te Sénégal nag mérité na nag wax dëgg yàlla alxuraan ci réew mi am fi benn dayoo boo xamante ni rek lépp lu ñu yëkkati rek waa daara ñoo ko war a yëkkati loolu alhamdulilah rabbil alamin la ñu wax ndax nag liggéey nañ ko fi nag ci Sénégal ndax yitte ñu jox alxuraan néew na nga dem ab dëkk ñu jox ko ko kon bu ñu amee ay yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi ci ba noppi garder seen alxuraan waxiil alhamdulilahi rabbil alamin la ñuy wax alhamdulilah kon dañuy jox suñ mbàkke buso moom mi nga xamante ni moo jiitee jury bi ñuy atte ñu leeral naka la yëf yi di demee ndax concours bi wax naa leen ko dafa am spécialité maanaam valoriser njàngum Sénégal tamit da cee bokk mooy lan boo xoolee Sénégal boo génnee 2000 jëm suuf daanaka ñi mokkal alxuraan ñëpp ci xiraa aadiya lañ ko mokkale wala ñi ci ëpp bokk kon donc booy organiser concours ki nga xam daa mokkal alxuraan ci xiraa aadiya boo ko fa yóbboo day mel ni bokkut wala boog mënul alxuraan fekk demewut noonu ndax sénégalais dañuy jaawale tajwid neexal baat ak tajwid neexal baat neexal baat la bu doon neexu baat bu neex rek la sénégalais duñu fi indi benn raw gàddu fii ci Sénégal ndax am nañu leen dàq baat fuuf te ñu ngi bitim réew kon dafa am lu nëbbu lu ñu bëgg a feeñal mooy njàng mu cosaane mi nekk ci réew mi mën a baral ba noppi leer ba noppi mokkal ko loolu na ndongo daara boo ci nat boo ko indee ak beneen réew doo ci gis moromam fii ci Sénégal loolu lañ bëgg a ñu feeñe lar ko xam ni ñii ñii ñooy cosaanu alxuraanul karim donte njàng moom na mi mi ngi gañe teere te loolu alhamdulilah lañuy wax ndax alxuraan nu mu gën a rafete rek gën rafet kon loolu moo tax concours bi aussi ñu indi yeneen xaay da yoo xamante ni day wuuteeg li ngeen miin ci concours yi suñ Mbàkke Buso bismillah بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل mbokki jullit yi ñoo ngi ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan sunu borom boole ñu jéggal boole ñu yërëm boole ñu defal fan wu gudd ak wér ak mujj gu rafet di ñaanal sunu xulafaa yëpp gudd fan ak wér ak ndam ci liggéeyu lislaam bi di ko ñaanalit kilifa aada yi di ko ñaanal kilifa yépp di wax ni concours bi ñu fi dajale muy concours nafar alquran dafa ràññiku wuuteeg ni ñu xamee woon concours ci réew mi ni xamee woon concours ci réew mi mooy njàng lay doon moo xam ni boroom da koy tajwid tajwid nag wuute naag xusnu sawt maanaam kàddu gu neex waaye tajwid mooy muraatu ahkaami tajwid sàmmonteeg attey tajwid yépp bari na lool mënee su koo lim ndax jotaay bi ku sàmmonteeg ahkaam yépp rek maanaam tajwid def nga tajwid donte sa baat neexut wala neexaloo ko waaye nag bii nag moom jëliwuñ donga bu nekk ca daara ja wala ab sëriñub daara dañoo jëli koo xamante ni si jàng na bu yàgg génn ba nekk ci commerce bi di léggéey wala mu nekk ab ouvrier ci leneen di léggéey moo tax ñu tuddee ko nafar da leen di soññi ngir ñu mën a gën a toppatoo seen alquran bañ koo fàtte ndax alquran ni mu teddee xale bi bu ko jàngee sunu borom defal na ko ci ay may bu ko fëttee it noonu la amee ay tëkku wala iyaazu billahi taala ci kaw loolu nag ahkaamu tajwid yooyu yu bari ñun ñun bàyyi nañ ko xel naam ci ne nit ki war na war naa sàmmonteeg moom waaye concours bi natt wi duñ ko ci bàyyi xel comme li ma waxoon natt natt yi mënoon nañu sukkandiku ci ahkaamu wi di boole ci mbooleem att yépp di di ko natte waaye concours bi bindewul noonu moo tax ñu tànn yu yamamaay rek ni moom lañuy natte sunu candidat yu baax yi bokk na ci loolu mooy li ñuy njëkk a lijjanti mooy mokkal gi alquran wattu gi ci sual ci asile yépp dana danañ sàmmante déglu candidat bi ba xam wattu gi am na li li ñuy xamal ni wattu gi am na mooy mboole seen laaj yi ñu koy laaj yépp du ci am gàkk loolu danañ mën a rafet njortu ni ci ne wattu gi am na ñaareel bi it bàyyi nañ xel tari bi leer gu mu leer ndax bëgguñu it mu jaxasoo lool bokk na ci natt yi bi ci des it mooy yàq yàq yi nag bari na lool mën naa am yàqu baat wala leneen waaye nag ñun liñ sàmmanteel mooy liñ naan runge boole nañ ko ci wala deltu dem dem kanam dellusiwaat xaw a jaawale muy taraajo moom tamit bàyyi nañ ko ci xel ci li ñuy noté ci la bokk kon concours bi yooyu lañ yooyu dong lañ ko tënk ci ne moom la ñuy seet ci candidat bi bu ko candidat bi jàllee rek insha allahu rabbi jàll na dana nekk tamit ñaari dawru dawrul awwal ak dawru saani xam naa mbokk mi di sëñ Xasan bu dikkee dana ko gën a la ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ñoo ngi tudd sëriñ Mbàkke Gueye ñu tuddee ñu sëriñ Mbàkke Bousso sëriñ bi dafa xawoon a juum tuuti ci sant bi jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Mbàkke Bousso Gueye sëñ <laughs> Mbàkke Bousso ama yóbbaale borom xam-xam bu mag ba san waaw kon loolu mooy li nga xam ne noonu la yëf yi di demee kon ñu woo candidat bu njëkk bi candidat bu ñu wooree day ñëw nii incha allah mu déglu ko ñu laaj ko question yi mu tontu bu soobee yàlla kon sëriñ Mouhamadul Amin Fall al Amin Fall mooy kàndaa bu njëkk bi ñuy njëkk woo waaw ñi ngi sàkku nag kon ñu ñaanal waa Palestine suñu mbokk julli yi nga xam ne xëy na jamono ji suñu borom def na ñi ngi ciy xat-xat une de silence rek lu waaye man ci alxuraanul karim ñu ñaanal leen ko ngir suñu borom teggi leen nattu yi mu leen teg ci barkeb alxuraanul karim bismillahi rahmaani rahim barkeb alquranul karim yàlla na suñu borom teggi coono yi suñuy mbokk jullit ya nekk ca euh, Palestine kon bismillah sëñ Mouhamadou Amin kon nga déglu say question yow yaa représenté sa waa raison waa Ziguinchor bismillah bismillah euh, sëñ Mouhamadul Amine Fall candidat Ziguinchor sa laaj bu njëkk jàngal ñoo walladina amanu wa amilu lsalihati sanudxiluhum jannatin tajri min taxtiha al anhaar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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وحد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يحمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن فمن يحمل من الصالحات فلا كفران ومن يعمل من الصالحات من فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزلنا قرآنا عربيا وتركنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى لهم ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يهدى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عينا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له حسما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا حسبك fa sajadu illa wa iz qulna lil malaikati isjudu li aadama wa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fa yaxaafu sulman wala hadma wa kadhalika wa man ya'mal min as-salihati wa man ya'mal min as-salihati fala kufrana laysa bi amaniyikum ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يحمل سوءا يجس به ولا يجله من دون الله ولا وليا ولا نصيرا ومن يحمل من الصالحات ومن يحمل من الصالحات وهو مؤمن فلا ومن يحمل من الصالحات وهو ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله محمد واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ولله ما في السماوات sëñ Mouhamed wa man min as-saalihaati am na loo ci bàyyi bàyyi ko xel wa man min as-saalihaati baamtu am na loo ci bàyyi wa man yaamal wa man yaamal min as-saalihaati fa ulaaj wa man yaamal min as-saalihaati fa fala wa man yaxmal min alsaalihaati fala yaqaafu sulman wala hadman wa man yaxmal min alsaalihaati min dakarin aw unsa wa man yaxmal min alsaalihaati min dakarin aw unsa wa huwa muminun wala wa huwa muminun fa ulaaka yadxuluuna aljannata wala yuslamuuna naxiira wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi muhsinun wa tabaxa millata ibrahima hanifa wa attaxasa allahu ibrahima xalila wa lillahi ma fi samawati ma fi lard wa kaana allahu bi kulli shayin muxiita wa yastaftuunaka fi nnisaai qul lillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fi lkitaabi fi yataama nnisaa في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إخراجا فلا جنى عليهما أن يزالها بينهما زرعا والزل خير وأهدرت الأنفس الزح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو عرفتم فلا تميلوا تحملوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تحملون خبير jërëjëf sëñ Mouhamad sa laajub ñaareel inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la xaafizuun إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتهم من رسول وما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يهرجون لقالوا إنما ذكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اشترى والشمس فأتبه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موسود وجعلنا لكم فيها من كل شيء موسود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا قصائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين jërëjëf sëñ Mouhamed bàyyi guñ la des na benn laaj sa ñetteel bi laaj jàngal ñu walladina laa yashhaduuna azzuur wa ida marru billaghwi marru kiraama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون السور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ذما وحميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الحربة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها وسنت مستقرا ومقاما قل ما يهبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم sawfa yakunu euh, jërëjëf sëñ Mouhamad mën nga dellu sa place jërëjëf ñaareelu candidat bi ñu ngi woo sëñ Abdoulaye Dieng région de Sédhiou Abdoulaye Dieng Sédhiou waaw yéen ñi nga xam da ngeen a indaale seen i kan daanaka day leen encouragé ay allahu akbar allahu akbar allahu akbar sëñ Ablaye Dieng sëñ bu njëkk jàngal ñu ci riwaayatu warsh afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يصلوا ويحسنون ربهم ويقامون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجر وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وحلاليا ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم حكم الدار جنات عدن يدخلونها ومن سلم من آبائه وأزواجه والسريان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ورحمة الله فنعم الحكم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويحتون ما أمر الله به أن يصلوا ويحسنون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولم سوى الدار الله يحفظ رزقا لمن سعى الله يحفظ رزقا لمن سعى ويقدر وفر بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة لما تهو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي يخلي الله يدل من سعى ويهدي إليه من أنام الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم يتلو عليهم الذي أوحينا إليك هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن القرآن سيرت به الجبال an futihat bihi al-ardu aw kulima bihi al-mawt bi illahi al-amru jami'an afalam ya'si lillazina amanu an law yasha Allahu lahata an-nas jami'an wa la yasalu lillazina kafaru tusibu bima sanu kharihatun aw tahulu qariban min darin hatta ya'ti wa'dullah inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad wa laqad ustusiya bi rusulin min qablika fa amlaytu lillazina kafaru thumma akhadhtuhum fa kayfa kana al-'iqab afaman huwa kha'imun 'ala kulli nafsin ma kasabat wa ja'alu lillahi shuraka'a qul sammuhum wa am tunabbi'unahum bima la ya'lamu fi al-ardi am sahirin min al-qawli bal zuyyina lillazina kafaru makruhum jërëjëf uh, ñu ngi sàkk nga gën a jege micro bi bu ko defee jury bi gën a mën a déglu bu baax a baax. sëñ Abdoulaye Dieng boo mënee gën a jege micro bi am na yu ñuy rëcc de. Euh, laajum ñaareel bi.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 وكان امره مفروضا وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا احدثنا للظالمين نارا احد بهم سرادقها وان يغرسوا يقاس بماء كالمول يسمي وجوها في السراب وسار مرتفقة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات حريم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سمس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بالنخل وجعلنا بينهما سرحا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تسد منه سنة وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سبل فقال لصاحبه هو يحاور أنا أكثر منك مالا وأحسن نفرا ودخل الجنة وهو سالم لنفسه قال ما أحسن أن تبيد هذه أبدا ما أحسن صالح خيما ولئن ردت إلى رب لأجرن خيرا منه ومن خلبت قال له صاحبه جرجف waaw ñu ngi sàkku ngay yeggali aay mu gën a leer mi ngay wax gën a leer inna allazina amanu wa amilu salihat inna la nidu ajra man ahsana amala ulaika lahum jannat adnin tajri min tahtihim al-anhar yuhallawna fiha min asawir min sahabin min sunsin wa yastabraqun muttaqina fiha ala ara'ika ni'ma sawab wa hasra wa adrib lahum masalan rajulan ja'alna li ahadihima min ahnab wa hafanahuma bin nakhlin sarhan kilta jannatin atat ukula wa lam taslim minhu shay'un wa fajjarna khilalahuma nahara wa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 wees xaala luqmaan li nuyu wa yaayisoo yaa bunayya laa tusrik billahi inna sirka la sunum asa wa wasiyana lil insaana bi waalidayhi hamalatu umma waxnan xalaa waxnin wa bisaaru bi xamani an uskuli wal waalidayka ilayal masir wa in jaahadaaka xalaa an tusrika bii maa laysa laka bihi falaa tuti'huma wa saahibhumaa fii dunya ma'ruufa wa tabi sabila man anaaba ilayya summa ilayya marji'uka fa unabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun yaa bunayya innahaa in taku misqaalu habatin min xardalin fa ta'ku fii sarrin aw fii samaawaati aw fil ardi ya'ti bihi Allaah sëñ Abdoulaye Dieng leeralaat ñu wa in jaahadaaka alaa an tushrika bii tàmbalee foofu tàmbalee ci laaya ji wa in jaahadaaka ala an tushrika bi maa laysa laka bihi ilmun falaa tuti'humaa wa saahibhumaa fid dunya ma'ruufan wattabi' sabiila man anaaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun yaa bunayya innaa in taku misqaala habatin min khardalin fatakun fis saxarati aw fis samaawaati aw fil ardi yaati biha llahu inna laa latifun xabir yaa bunayya aqim salaat wa bil ma'ruf wa anha anil munkar wasbir inna saalika min asbil umur wala tusaahir xaddaka linnaas wala wa lan tabluqa al jibaala tawla kullu saalika wa lan tabluqa jibaala tawla kullu saalika kaana sayyi'atan xindarak sëriñ Abdoulahi Dieng sëriñ Abdoulahi Dieng baamtullaaye jooju wala tams wala tusaa'ir xaddaka linnaasi wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taarixal larda déedéet na laa laayam bismillah bismillah ولا تسار خدك للناس ولا تمثل في ولا تمثل في المرأة إن الله لا يكل مختال بخير واخسف في مسجد واخرج من صوتك إن ألقى الأصوات لا صوت الحمير ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم نعمه ساهرة وباترة ومن الناس من رجال في الله بخير في الله بخير في الله بخير في الله بخير في الله بخير سن عبد الله جن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ولا تساهل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تنهى اللدى ولن تبلغ الجبال طولا كل سالك كان سيئا هندرا مكرها سالك مما هو إلا ربك حسبك jërëjëf waaw xanaa kon war ngeen kontaan ci seen commerçant yi ndax lii moom yaakaar naa li ñu mën a gën a miin ci commerçant mooy ñaata wàññil ma ma jaay la waaye tey jii nag bu ay commerçant taxawee tey ñu leen di fitt ci alxuraan publiquement ñuy dari loolu yaakaar naa war naa sedd xolu bépp jullit ndax lii yombul fu muy amee waxuma amul fen de waaye daal li ñu xam ñi ngi soor a dégg ci àdduna concours boo xamante dañ koo jagleel ay commerçant yu mokkaloon arxuraan génnee ci daara fii bari nag ñoo xam bañ mokkalee arxuraan mën na ñaar fukki at ku ne xam ne arxuraan ak ni mu jafee ngay liggéey di ut loo yóbbu sa kër garde ko ñaar fukki dëgg dëgg loolu yombul loolu lu jafe la kon wax dëgg yàlla ñii ñu yelloo ak sargal la ñu yelloo ak ñaanal la ñu yelloo ak ndimbal la ndax ñii bu ñu amee ndam rek daara am ndam loolu rek moo yitte ji Sénégal dañoo war a xam importance bi leen suñ borom subhaanahu wa taala defal mooy mën a boole àdduna ak àllaaxira te benn du yàqu te loolu mooy objectif doomu aadama wala tansa nasibaka min ad-dunya waaye nag faw wabtaxi fi ma aataaka allaahu daaral aaxira te nit ki bu xawee sàggan rek àdduna mën naa dox digganteem ak àllaaxira jërëjëf kon ñu ngi woo suñ ñetteelu candidat euh, sëñ Dame Diop Louga région de Louga ana ñi ànd ak suñ daam manifester leen allahu akbar allahu akbar allahu akbar salaamaaleykum wa rahmatullahi taala daam jàngal ñu sa laaj bu njëkk ci riwaayatu warsh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 وليستخفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفي بالله عذيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا عذر القسمة أولو القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا jërëjëf Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aywa naam sëñ daam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 qaala rabbi anni yakunu li xulaamun wa kaanat imraati haaqiraa wa qad balagtu min alkibari utiyyaa qaala kazaalika qaala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad xalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحي إليهم أن سبحوا بكرة وعزيا yaa yaxye usil kitaaba bi quwwatin wa aataynaahu alxukma sabiyya wa anaanan min ladunna wa zakatan wa kaana taqiyya wa barran bi waalidayhi wa lam yakun jabbaaran asiyya وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا سرخيا sëñ daam sa ñetteel bi laaj ci riwaayatu Warsh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 ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يحسيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تحملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس سائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم jërëjëf sëñ daam candidat bu Louga jërëjëf mën ngaa dem ah bismillahi macha allah macha allah waaw lii rek lii rek mooy yéene waaw lii rek la lii rek la kon sëñ bi bismillah ki ci ñu xam ni ñii ay jàmbaar lañ ah. ay jàmbaar lañ li ma jublu mooy mokkal alxuraan jafe na waaye téye ko moo gën a jafe téye ko dina gën a jafe boo nekkee di yaxantu loolu lu jafe la ku ne xam na ni commerçant ni mu occupé waaye nag bari na Sénégal ay borom yi daraja yoo xam ni nag ay commerçant yu mag lañ ba noppi nag ci seen alxuraan xëy na dañoo nëbbu waaye seex Bachir insha allah ñun ñëpp dañu leen feeñal ba ñu xam Sénégal taxawaay bi nga xamante ni alxuraan am na ko fi waaye it taxawaay bi nga xamante ni ñoñ daara am nañ ko fi waaye wane tamit objectif bi nga xamante ni mag ñi amoon nañ ko ci suñu réew mooy lan nit ki mën na nekk commerçant ba nepp ba noppi yor jikko ju rafet maanaam dañoo war a gëm nii doomu aadama fépp fu mën a nekk dafaa war a yóbbaale jikko te alxuraan nag ba alxuraan jeex lépp rek jikko ju rafet rek lay jàngale te doomu aadama nag buy fu mu mën a nekk moo xam commerçant la moo xam métier la moo xam kuy jàng la bu amul jikko ju rafet daanaka xottu doomu aadama rek la te xottu doomu aadama nag bépp yonente bu mës a ñëw nag defar doomu aadama rek moo la jóg kon loolu rek moom lañ bëgg a wane saa su nekk ci ni daara mi ngi fépp daara gën naa yaatu ci daara fi ñuy jànge alxuraan waaye ndongo daara fépp fu mu nekk rek daara la moo xam imaam la moo xam kuy jàngale la moo xam commerçant la bëgg nañ daal ñii bu ñu génnee fii raison bu ñu dugg ñu xam ni nitu alxuraan duggaat na ak coppi ko amaat na ci nitu alxuraan ndax alxuraanu karim moo ko sargal te suñ borom ku mu sargal rek ñëpp war a yëg na suñu borom sargal na la kon jiri bi bismillah kon ñu woo suñ ñeenteeli candidat muy Baye Mor Ndongo région de koldaa ñu sargal ko allahu akbar allahu akbar bismillah Baye Mor Ndongo sa laaj bu njëkk ci riwaayatu warsh alam tara ila alladina tawallaw qawman gadiba allahu alayhim ma hum minkum wala minhum auzu billahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rahim alam tara anna laa xadib allah alayhim ma hum minkum wala minhum wa yalfuna ala kasibu alam tara anna laa xadib ma hum minkum wala minhum wa yalfuna ala alkasibu wa hum yalamun ahadda allahu lahum asaba sadidinam saa ma kaanu yamaloon ittaxasu aymaanam junnatan fasadu an sabilillah falahum asaba muhin lan tuxniya anhum amwaluhum wala awlaadu meela seen ulaika ashabu neer hum fiha xaalidun masalu ma yunfiquuna fi haasi lxayaati dunia kamasarin fiha sirru nasabat xarsa xawmin salamu anfusahum fa alakro ma salamahum la walakin anfusahum yaslimun bay moor ittaxadu aymaanahum junna ittaxasu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum asabu muhin bismillah lan tuxni anhum amwaalum wala awlaadum min allahi sayan ulaayika ashaabu nneeri hum fiha xaalidun yowma yabasumullah jamian fa yarifuuna lakum maa yarifuuna lakum wa yasibuuna annahum ala sayin ala innahum humul kaasibun istahwasa alayhim istahwasa alayhim seytaanu fa ansahum zikra allah ulaayika xisbu saytaani alaa in xisba saytaani humul muflihun alaa in xisba saytaan ulaayika xisbu saytaani alaa in xisba saytaani humul muflihun bay bay moor istaxwada alayhim saytaanu fa anseehum tàmbale ko istaxwasa alayhim saytaanu fa anseehum sikrallah ulaayika istawasa alayhim seytaanu fa ansihim zikrallah ulaika an isbu seytaan inna inna isbu seytaan mu fi yoon bay moor ala inna xisba sheytaani humul xaasiruun istawasa alayhim seytaanu fa ansihim zikrallah ulaika an isbu seytaan inna inna isbu seytaan humul xaasiruun ala inna xisba sheytaani humul xaasiruun استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنسيهم ذكر الله أولئك عليهم أولئك ابتلاهم القاسرون jàllal هم الذين يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى سبحان الله سبحان الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون lu topp هم الذين يقولون inna alladina yuxaadduuna allaha wa rasulah mooy topp inna alladina yuxaadduuna allaha wa rasulah inna alladina yuxaadduuna allaha wa rasulah kubida kama kubida alladina min qablihim wa qad ansalna subhanallah subhanallah inna alladina yuxaadduuna allaha wa rasulah ulaayka fi la salina kataba allahu la axlibanna ana wa rusuli inna allaha xawiyun aziz laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmil aaxiri yuwaadduuna man xaada allaha wa rasulahu walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bihim wa ayyadahum biruhum minhu wa yudxiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidiina fiihaa radiyallaahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullaah alladiina hizbullaah humul muflihuun xasbuk xasbuk sa ñaareelu laaj وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا وي وإما تعرضن عنهم ابتغاء مرضى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولن تجعل يدك ولن تجعل يدك معلولة لا هناك wala tam maanaam dalaa bëgg a wax nga tàmbalee foofu mooy ñaareelu laaj bi la laaj Baye Mor ma laajaat ko may ko tuuti wa imma tu'ridanna anhum ibtigaa'a rahmatin min imma tuuti dallu tuuti tuuti maanaam ay laaj lañ kenn ku ci nekk day am ñetti laaj laaj bu njëkk bi boo taree bañ ni la doy na doy na bu ko defee laajum ñaareel bi dañ lay wax njëlbeen gi yow nga daal di tari dem ah. waaw ah. naanal ndox bu ko defee nga dal bu baax bismillah naam Baye Mor wa imma tu'ridanna anhum ibtigaa'a rahmatin min rabbika tarjuuha fa qul lahum qawlan maysuura fa qul lahum qawlan maysuura wa lan taj'al yadaka maghlulatan ilaa unuqika wa laa tabsutha kullal basti fa taq'uda fa taq'uda maluuman mahsuuraa inna rabbaka yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdiru innahu kaana bi ibaadihi khabiiran basiiraa wa man yahdi llahu fa huwa al-muhtadi subhanallah subhanallah innahu kaana bi ibaadihi xabiiran basiira wa man yahdi llahu baamtul inna rabbaka yabsutu rizqa liman yashaa'u wa yaqdir innahu kaana bi ibaadihi xabiiran basiira bismillah man kaana yuridu alxaajlata wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq wala taqtulu awlaadakum xasra imlaaq noonu la suq wala taqtulu awlaadakum xasra imlaaq noonu la suq wa iyaahum inna xallahum kaana xitaan kabira wala taqrabu sine innahu kaana fahisatan wa maqtan wa saa sabila xurrimat aleykum ummahatukum wa banatukum subhanallah da nga ni innahu kaana fahisatan ah wala taqrabu zina tàmbaleel foofu wala taqrabu sine innoo kaana faayatan wa maxtan wa saa sabila subhanallah déedéet wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa sabila wa saa sabila xorimat xasbuk ah, jërëjëf sa njëtal bi laaj Baye Mor يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأويهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين fa xaanataahuma falam yuxniyaa anhuma min allaahi shay'an wa xiila duxula annaara ma'a daaxilin wa daraba allaahu masalan lillaziina aamanu imra'ata fir'awna iz qaalat rabbi ibni lii indaka baytan fil jannati wa najjinii min fir'awna wa 'amalihi wa najjinii minal qawmi saalimiin wa maryama ibnata imraan allatii ahsanat farjahaa fa nafaqnaa fiihi min ruuhinaa wa saddaqat bi kalimaati rabbihaa wa kitaabihi wa kaanat minal qaanitiin. ah macha allah macha allah waaw xam naa bu ko jot gi maye woon de aay yi sax dinañ ko firil mbooloo mi ñu xam ne ba ñuy tànn aay yi aay yi yëpp alxuraan lépp njariñ la waaye aay yëpp daa am lu muy jàngale ci société waaye nag bu ko jot gi maye woon nag ñu leeral aay yi yëpp wax dëgg yàlla waaye am nañ mbégte lool ci suñu candidat bi macha allah bismillah ki ci topp suñu jeen sëriñ Ousseynou Ndiaye moom it ba tey di ab commerçant di ab ndongo daara bokk ci ñiy doxal économie réew mi doon ab citoyen modèle di liggéey ci marché yi ngir wërsëg wu lew mokkal alxuraan bismillah hmm. Ousseynou Ndiaye Fatick قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوه ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي يبين سبحان الله تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيه فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ sa ñaareel bi laaj sëñ Xuseyn wa saxara lakum ash-shamsa wal qamara daa'ibayn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأنهار وآتاكم من وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لا تحصوها إن الله لغفور رحيم sëriñ Saalix wa aataakum min kulli ma sa'altumuuh wa aataakum min kulli ma sa'altumuuh wa in ta'uduu ni'mata Allaahi laa tuhsuuhaa inna al-insaana lakafuur wa in tacuddu nicmata allahi laa tuxsuuha inna linsaana la zaluumun kaffaar inna linsaana la zaluumun kaffaar wa in tacuddu nicmat allahi la tuxsuuha inna linsana la zalumun kaffaar li kulli ummat déedéet wa id qaala ibrahimu rabbi jcal hada albalada aamina وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا آمنا واجنبني wajnubni wa bani an acbuda al asnaam jërëjëf rabbi innahu jërëjëf sa ñetteel bi laaj jàngal ñu وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض sëñ Xuseyn bismillah tàmbali waatal وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعدهم خوفهم أمنا أمنا وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون به ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الظالمون سبحان الله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني laa yushrikuuna bihi shay'an laa yushrikuuna bihi wa man kafara ba'da dhaalika fa subhaanallah subhaanallah laa yushrikuuna bihi shay'an wa man kafara foofu laa lay gàggante laa yushrikuuna bihi shay'an wa man kafara لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون laa taxsibanna alladiina kafaru mucjiziina fi l-ard wa ma'waahum nnaar wa labiisa l-masiir. jërëjëf jërëjëf sëñ Ousseynou Ndiaye Fatick. macha allah macha allah yàlla na suñu borom taxawu la alxuraan ji rafet na lool. day mel ni ñi ngi signalé ni benn 4x4 Jeep AA 272 DF daa mel ni day ralentir waaw bu fekkee borom gis na ko mu bàyyi ko xel lañ wax ñu ngi koy signalé sànq ba léegi ay nit yu bëri signalé nañ ko fi mu bàyyi ko xel bu dee borom mi ngi fii nee na oto bi day ralentir fayut daal fekkee newu ci kon ñu woo ki ci topp rek ci candidat yi macha allah lii rek de mooy mission doomu aadama lii rek la te it nit ki moom mënut a am lu gën a rëy. loo xamante ni day taxawu ak ruwam te li gën a rëy ci luy taxaw ruuwu doomu aadama nag mooy li suñ borom wax subhanahu wa taala innama almuminuuna alladina ida dukira allah wajilat qulubuhum maanaam saa yu ñu tuddee alquran suñu ji rek sa xol yëg ni ñi nga wax borom waaye nag sa xol yëg du looy yëg dégg ko rek teewlu ko waaye jëfe ga caa baax ndax alquran indiwul lu kenn mënut lépp lu indi rek suñu borom natt na ko xam ne doomu aadama mën na koo def loolu rek mooy alquran kon nit ñi dañuy def yi ci alquran ci xam ko di ko jàngal seen doom yi ndax nit mënta am lu gën a rëy doom ji mokkal alquran ba noppi di ko jëfe kon bismillah kon ñu ngi woo Serigne Saliou Khoule région de Kaolack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 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله sëriñ Saalix إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت yuxriju alxaya min almayiti wa yuxriju almayita min alxay wa muxriju almayita min alxay wa muxriju almayiti min alxay wa muxriju almayiti min alxay dalikum allah fa annaa tuufakuun faaliqu lisbaaxi wa jaacilu llayli sakanan walcamsa walqamara xusbaana dalika taqdiru alazizi alalim wa huwa alladi jacala lakumu nnujuuma litahtaduu biha fi zulumaati albarri walbaxri قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس فمستقر ومستودع سرين صالح هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان wa huwa alladi anzala min alsamaai maan fa axrajna bih fa axrajna bihi nabata kulli shay فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه inna fi dalikum la ayatin li qawmin yuminuun wa jacaluu lillahi shurakaa aljinna wa xalaqahum wa xarraquu lahu baniina wa banaatin bi gayri cilm سبحانه وتعالى عما يصفون حسبك jërëjëf sa ñaareel bi laaj قل كل يعمل على شاكلته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك عظيما سرين صالح إن فضله كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا sa ñetteel bi laaj قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى allahu xayrun ammaa tushrikuun amman xalaqa as-samaawaati wal arda wa anzala lakum mina as-samaa'i maa'an ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله bal hum qawmun yacdiluun amman jacala al-arda qaraaran was-samaa'a binaa'an sëriñ bi amman jacala al-arda qaraaran wa jacala wa jacala xilaalahaa anhaaran وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون حسبك صدق الله العظيم jërëjëf Sëñ Saliou Khoule région de Kaolack. macha allah. macha allah ku xam alxuraan de xam ni ay yi ñu leen di laaj faw rek nga mokkal alxuraan dëgg miin ko te di ko nafar ngir mën koo jàng ndax aay yi bañ koy tànn dañoo xool aay yi gën a jafe ci alxuraan ndax alxuraan daa am lu ñu naan muhkamaatun mutashabihaat aay yu nduróo lool te bokkuñu ñu nekk yii ay ay ay ay xaraf rek moo leen di manqué ñii ay baat yii ay baat lañu ñu nduróo aay yooyu lañ doon tànn tànn ko nag tànn woo xamante ni ci fan yu yàgg lañ ko tànn ndax bañ ñu nduróo li ñuy bari bari benn bokku ceeg sa moroom moo tax ngeen di gis léeg-léeg ñu leen di xaw a gësam waaye du ñàkk mokkal alxuraanul karim moo jafe li ma yéem mooy ñii ay commerçant di liggéey ci marché jaay ma jàppal ma jaay la ba noppi man lii lii jafe na lii mooy Sénégal lii lañu war di wane lii la raison bu nekk war di tiitaroo di ndamoo waaye ci ay caaxaan loolu du ndam lii mooy ndam ñii bëgg nañ bu ñu delloo rek ku leen gis xam ne alxuraan moo nekk seen dënd kon bismillah kon ñu woo Serigne Bàcci Ndiaye région de Kédougou Serigne bàcc Ndiaye région de Kédougou Kédougou ak Ndakaaru ma fàttali leen ëpp na 700 kilomètres te Albachir mi ba mu fay dem 700 kilomètres yi ci ñaari fan la ko def aller retour 1800 wala 1500 kilomètres Albachir def na ko ci su 48 heures ngir lan ngir tànn kenn ku mokkal alxuraan kon loolu yitte ju kawe la kon sëriñ bi bismillah sëñ bàcci sa laaj bu njëkk ci riwaayatu warsh ba tey yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم حتى حتى تقيموا التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليك من ربك تحيانا وكفرا sëriñ Bàcce ñoo ngi jégalu dañuy leerluwaat rek qul yaa ahlal kitaabi lastum qul yaa ahlal kitaabi lastum ala shay'in ala shay'in minhu hatta tuqimu at-tawrata wal injil sëriñ bàcci lastum ala shay'in lastum ala shay'in hatta mm-hmm. hatta tuqimu at-tawrata wal injil والإنجيل وما أنزل إليك من ربك تحيانا وكفرا سرين باتشي لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم تحيانا وكفرا طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وحمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون لقد قصنا ميشاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم ۖ وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسل ما لا تهوى بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون سرين باتي تروات لا يجوج لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسل بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول كلما جاءهم رسول ها بسم الله كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسم وسموا فتنة فحموا وسموا ثم حموا وسموا كثير منهم كثير منهم والله بصير بما يحملون سرين باتي وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم حموا وسموا ثم عموا ثم حموا وثم وسموا كثير منهم والله بصير بما يحملون حسبك jërëjëf sëñ Bàcci sa ñaareel bi laaj ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والشمس والقمر كل تجري والشمس والشمس والقمر وسق وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه سرين باتي وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم منفرات بأمره والنجوم مسخرات بأمره بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا مختلفا ألوانه نلوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سقر لكم البحر لتاكلوه sëriñ bàcc wa ma daraa lakum fi lardi muxtalifan alwaanu inna fi dalika la aayatan li qawmin yadakkaruun wa huwa alladi saqara lakum albahra mm-hmm. wa huwa alladi saqara wa huwa alladi saqara albahra mm-hmm. wa huwa alladi saqara albahra litajriya alfulka fiihi bi amrihi wa huwa alladi saxara albaxra litaakuluu min litaakuluu minhu laxman tariyan wa tastaxrijuu minhu lam wa tastaxrijuu minhu minhu xilyatan wa taral fulka mawaaqira fiih wa tastaxrijuu minhu xilya litaakuluu minhu laxman tariyan wa tastaxrijuu minhu xilya talbasuunaha talbasuunaha تلبسونها وترى الفلك مواقر فيه وترى الفلك مواقر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون حسبك سنة البلاد أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله qul haatu burhaanakum in kuntum saadiqiin amman yahdiikum fi zulumaati albarri walbahri wa man sëriñ sëriñ bàcc amman yabda'u alxalqa summa yu'iiduhu amman yabda'u alxalqa summa yu'iiduhu wa man yarzuqukum min as-samaa'i wal ardi من السماء والأرض أي إله مع الله قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك هلمهم في الآخرة بل هم في سك منها بل هم في سك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا وآباؤنا أئنا لمحرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبله من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكر مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يحلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين jërëjëf jërëjëf sëñ Bathie Ndiaye Kédougou jërëjëf macha allah kon ki ci topp bismillah Serigne Omar Gueye Ndar Saint-Louis waa Ndar waa Saint-Louis bismillah Serigne Omar Ndar mooy sunu juróom-ñetteel bi candidat sa bu njëkk ci riwaayatu warsh yuusufu ayuha siddiqu aftina fi sab'i baqatin simaan auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim yuusufu ayuha siddiqu aftina fi sab'i baqarati simaanin yaakuluna sabun ijaaf wa sab'a sunbulaatin xudrin wa oqara yaabisatin yaa ayyuhal malaw aftuni fi ruhyaya in kuntum li ruhyaya ta'burun sëriñ Omar am laatal yuusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simaan yaakuluhunna sab'un hijaafun wa sab'i sunbulaatin xudurin wa uxra yaabisatin la'allii arji'u ila nnaasi la'allahum ya'lamuun قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقاس الناس وفيه يعصرون سرين عمر ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يقاس الناس وفيه يعصرون فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيد عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا عسى لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة عزيز آلان حسن الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقف بالخيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين حسبك jërëjëf sëñ Omar sa ñaari bi laaj haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim bismillahi rahmaani rahim haadaani xasmaani ixtasamu fi rabbihim fallazina kafaru qutihat lahum siyaabun min neerin yusabu min fawqi ruusihim alxamiimu yusxaru bihi maa fi budooni waljuluudu wa lahum maxaamihu min hadidin kulla <coughs> min hadidin kullama araadu an yaxruju minha uhidoo fiha wa qiila lahum suuqu adaban xariq inna allah sëriñ Omar kullama araadu an yaxruju minha min xammin uhidoo fiha wa suuqu adaban xariq inna allaha yudxilu allazina aamanu wa amilu saalihaati jannatin tajri min tahtiha al-anhaar inna allaha yudxilu allazina amanu wa amilu salihati janatin tajri min tahtiha al anhar yu'alawna fiha min asawira min zahab inna allaha yudxilu allazina amanu wa amilu salihati janatin tajri min tahtiha al anhar yu'alawna fiha min يحلون فيها من أساور من سعب ولهلا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وعودوا إلى صراط العميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بسلم نسقه من عذاب أليم وإذ بوحنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تضرب بي شيئا وطهر بيتا للتائبين والخائفين وركع السجود وأسن في الناس بالعدي يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام كتاب المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام فكلوا منها وآتهما بائس الفقر sa ñetteel bi laaj bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi lahu ma fi lsamawati wa ma fi lard wa lahu alhamdu fi laxira wa huwa alxakimu alxabir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرج فيها وهو رحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل يا رب لا تاتينكم عالم الغيب لا يحسب عنهم مثقال سرد في السماوات والارض لا تاتيكم الا بطن يسال alhamdulillahi lazi lahu ma fi samaawaati wa ma fi al-ardi wa huwa bi al-aaxirati wa huwa xabiir ya'lamu ma yarju fi al-ardi wa ma yarju minha wa ma yanzilu min as-samaa'i wa ma yarju fiha wa huwa rahiimul ghafuur wa qaala allaziina kafaruu laa ta'tiinaa as-saa'atu qul balaa wa rabbii lataatiyannakum aalimul ghaybi laa yanzi'u anhu misqaala zarratin fi as-samaawaati wa laa fi al-ardi wa laa asgharu min zaalika wa laa akbaru illaa fi kitaabin mubiin liyajziya allaziina aamanuu wa 'amiluu s-saalihaati ulaa'ika lahum maghfiratun wa rizqun kariim wa allaziina saa'uu fi aayaatinaa mu'ajiziina ulaa'ika lahum 'azaabun min ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربكم هو الحق ويهدي إلى صراط حسن عميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مسكم كل ممسخ إنكم لفي خلق جديد أفتري على الله كسبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والدلال البحيد jërëjëf jërëjëf jërëjëf technicien bi bu ñu mënee dimbali ci micro bi mu baax ndax ndongo daara fi mu ne buy tari lu ko traversé rek day yàq mokkal gi bu téewee micro bi rek mën naa indi jiixi jaaxa ci li mu doon tari ndax ndongo daara ku ko xam buy tari baaraam bi sax day tari kon technicien nañu dimbale ci lii mu mën a baax moo gën ñoom ndax am na ñoo xam duñu a waaw kon bismillah ki ci kon toujours rek ñu sargal suñu suñu suñu commerçant yi ñii ay référence lañ ñii ku leen wane ci àdduna xam ni lii mooy modèle de développement mooy ay nit ñoo xamante ni jaar nañ fi ñu war a jaar jàng nañ téerab suñu borom bi man ko ba noppi xeebuñu benn métier waaye dañoo am lu ñu gëm mooy kasbul xalaal mooy fàggu lu lew loolu rek ci lañ nekk ndax loolu la alxuraan di jàngale ndax nag dañuy jaawale doylu ak am-am te nit ki bu xësee doylu rek dootul am jafe-jafe àdduna waaye loolu nag alxuraan a koy jàngale loolu nag téereb suñu borom bi subhaanahu wa taala moo koy jàngale jur bi bu ñu paree kon kon ñu ngi woo sëñ Abo Jaxate Thiès suñu juróom-ñeenteelu candidat sëñ Abo Jaxate Thiès Abo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam man la Abo Jaxate jànge xel koom teewal waa région de ci koom sëriñ Abo sa bu njëkk ci riwaayatu warsh yasaluunaka an ilahi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 fa in intahaw fa inna allaha xafurun rahimun wa qaatiluhum hattaa laa takuna fitnatun wa yakuna diinu lillahi fa in intahaw falaa udwaana illaa ala zaalimiin ashahru alxaraamu bishahri alxaraami walxurumaatu xisaasun fa man ihtadi alaykum fahtaduu alayhi bimisli ma ihtadi alaykum wattaqullaha wa alamu anna allaha maa almuttaqiin wa anfiqu fi sabilillahi wa laa tulquu bi aydiikum jërëjëf sëñ Abou salaajum ñaareel kadalika anzalnaahu hukman arabiyyan وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واخ ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسوله an yaatiya bi ayatin illa bi isnillahi li kulli ajalin kitaabun yamhu llahu ma yashaau wa yusabitu indahu umul kitaabi wa imma nuriyannaka ba'da alladi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka albalaagu wa alayna alhisaab awalam yaraw annaa naatil arda nanqusuha min atraafiha wallahu yahkumu laa muhaqqiba li hukmihi wa huwa sariihul hisaab wa qad makara alladiina min qablihim falillahi almakru jamii'an ya'lamu maa taksibu kullu nafsin wa saya'lamu alkaafiru liman uqba ddiir wa yaquulu alladiina kafaru lasta mursalan qul kafaa billaahi shahiidan baynii wa baynakum wa man 'indahu 'ilmul kitaab jërëjëf jërëjëf waaw ñu may ñu daal tuuti rek ñu àggali bu ko defee ñuy déglu mën a déglu baax li muy tari sa ñettal bi laaj walaw rahimnaahum wa kashafna ma bihim min durrin la lajju fi tughyanihim ya'mahun walaw rahimnaahum wa kashafna ma bihim min durrin la lajju fi tughyanihim ya'mahun wa laqad akhadnahum bil azabi fa ma stakanu li rabbihim wa ma yatadarrahun حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب سديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون لقد وهدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون jërëjëf jërëjëf sëñ Abo Diakhaté Thiès jërëjëf. Masha Allah Masha Allah macha allah macha allah aywa ki ci ah sëñ Abodé waa dëkkam taxawu nañ ko yéen yeneen candidat yi taxawu leen seen waa dëkk yéen it bismillah asalaama asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen may ñu tuuti comme bi ñuy doog a tàmbali am na luñ leeral loo xam ni saal bi am na ñu duggaat aajo woon nañu jaaraat ci mooy critères yi ñuy tànne concerné wut walla jëmul lool lool lool ci ahkaamu tajwid yi loo tamit ñu ngi ciy soññi candidat yi kenn ku nekk na nga mën a tare taree ko boo soppee tari rek mën na laa sonal wattu gi la ñuy xool ak leeraayu tali bi mooy bu ñu déggee xam ban baat la wax ak maanaam njuumte yàq wala runge walla tari ba yàgg nga dellu ci lu kenn xamut yooyu lay tànnee waaye am ma ahkaamu tajwid yi wala yu demee ni ki noonu bàyyiwuñ ko xel ci ci tari bi kon ñu bàyyiloo ko xel mbooloo mi doo ko dugg si bu ñu déggee loo xam ne si xaj na ay boroomi alxuraan lañ yaakaar ne ni dañ dañ koo dañ koo bàyyi mu jàll déedéet dafa fekk ni dafa bokkul ci maanaam miyaar bi ñuy tànnee loolu kase la ñoo ngi jéggalu bu baax a baax ci biir tari bi tàccu yi daf ñuy xaw a jaxase buñ koy ndokkeel mën nañoo bàyyi ba kàddoom daanu rek ñu daal di ànd ak moom jërë ngeen jëf waaw ñu bàyyiwaat xel loolu mooy li ñu waxoon ci concours dafa am spécialité mooy xiraa aadiya njàng mu cosaane bi nit mokkalee alxuraan ci daara rek noonu la koy jàngee ndax am na ñoo xam ne fi mu ne boo leen yóbbee ci tajwid rek dootuñu dem te pourtant mokkal nañu alxuraan kon ki ci topp sëñ Jeen sëñ Mouhamed Fall Dakar sëñ Mouhamed Fall Dakar moom ñu fàttali ni moom day jaay ndawal fii ci ndakaaru waaw kon bismillah naa am sëñ Mouhamad Fall sa laaj bu njëkk ci riwaayatu riwaayatu Hafs riwaayatu Hafs kaana annaasu ummatan waahida fa ba'ath kaana annaasu ummatan waahida sëñ Mouhamed Fall jàngal ñu kaana annaasu ummatan waaxida audu billahi min alsheytan arrajim kaana annaasu ummatan waaxidatan fa baasa allahu annabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala maahum alkitaba bilxaqi liyaxkuma bayna annaas fi ma xtalafu fih wa ma xtalafa fihi illa allazina utuuhu min bacdi ma jaatuhum albayinatu bagayan baynahum fahada allahu allazina amanu lima xtalafu fihi min alxaqi bi iznih wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim am xasibtum an tadxulul jannata wa lamma yatikum masalu alladina xalaw min qablikum massathum albasaau waddaraau wa zulzilu xatta yaqula arrasulu walladina amanu maahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yasalunaka maada yunfiqun qul ma anfaqtum min xayrin falilwalidaini walaqrabin walyatama walmasakin wabni sabil wa ma tafalu min xayrin fa inna allaha bihi alim kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yas'alunaka 'ani jërëjëf jërëjëf sëñ Mohamed jërëjëf sa ñaareel bi laaj wa anzalna min as-samaa'i maa'an bi qadarin fa askannaahu fi l-ard على ذهاب به لقادر فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون wa shajaratan taxruju min tuuri sayna tambutu bidduhni wa sibrin lil aakilin wa inna lakum fi l an'aami la ibra nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manaafiu kasiratun wa minha takulun wa alayha wa ala alfulki tuhmalun wa laqad arsalna nuuhan ila qawmihi fa qala ya qawmi ibudu llaha ma lakum min ilahin gayru afala tattaqun fa qala almalau alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law shaa allahu la anzala malaikatan ma samicna bihada fi abaina alawalin in huwa illa rajulun bihi jinna fatarabasuu bihi hatta hin jërëjëf jërëjëf sëñ Mouhamad sa ñettal bi laaj wa yawma ya'addu az-zalimu ala yadayhi yaqul ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an zikri ba'da iz jaa'ani wa kaana shaytaanu lil insaani xazuula wa qaala rasuulu yaa rabbi inna qawmi ittaxadu haadal qur'aana mahjuura wa kadaalika ja'alnaa likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimiin wa kafaa bi rabbika haadiyan wa nasiiraa wa qaala allaziina kafaruu lawlaa nuzzila alayhi alqur'aanu jumlatan waahidatan kazaalika linuthabbita bihi fu'aadak wa rattalnaahu tartiilaa wa laa ya'tuunaka bimathalin illaa ji'naaka bilhaqqi wa ahsana tafsiiraa allaziina yuhsharuuna alaa wujuuhihim ilaa jahannam ulaa'ika sharrun makaanan wa adallu sabiilaa jërëjëf sëñ Mouhamed Shukran jërëjëf macha allah macha allah macha allah macha allah macha allah ah Kanda waa Ndakaaru bi tàng na de sëñ Mouhamed aywa bisimilah aywa technicien bi micro yi yu ci bari dañoo commencé fay mu bàyyi ko xel aywa sëñ Mouhamed ku topp sëñ Xaarim Jaxate Kaffrine moom mooy suñu fukkeelu candidat ak benn numéro 11 bu jàllee mu des ñetti candidat kii mooy ki représenté Kaffrine ana waa Kaffrine ana waa Kaffrine ñu ñu tuuti rek juré bi am lu mu lijjanti ana waa Kaffrine ana waa Kaffrine asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen kenn ku nekk ci turam ak santam aywa bisimilah sëriñ xaadim jaxate jàngal ñu ci riwaayatu warsh salaat bu njëkk wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah audu billahi min ashaytani rajim wa min annaasi man yattaxidu min dunillahi andaadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون wa ida qiila lahum ittabi'u maa anzala allahu qaalu bal nattabi'u maa alfaynaa alayhi aabaa'anaa awalaw kaana aabaa'uhum laa ya'qiluuna shay'an wa laa yahtaduun jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim sa ñaareel bi laaj qaalu basharnaaka bilhaqqi falaa takun min alqaanitiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلين مرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين illa imraatahu qaddarnaa innahaa la qaala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa daalluun qaala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa daalluun qaala famaa xatbukum ayyuhal mursaluun qaalu inna ursilna ila qawmin mujrimin illa imra'atahu qaddarna innaha la min alghaabirin falamma jaa ala luutin almursaluun qaala innakum qawmun munkaruun qaalu bal ji'naaka bimaa kaanu fiihi yamtaruun bismillah sëñ xaaj ñoo ngi jéggalu bu baax qaala famaa xatbukum ayyuha almursaluun qaala famaa xatbukum ayyuha almursaluun qaaluu innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin illaa imra'atahu qaddarnaa innahaa lamina algaabiriin sëñ Xaadim qaaluu innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin qaala famaa xatbukum ayyuha almursaluun qaalu inna ursilna ila qawmin mujrimin illa imraatahu qaddarna illa ala luutin qaala famaa xatbukum ayyuha almursaluun qaalu inna ursilna ila qawmin mujrimin إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم wattabi' adbaarahum wa laa yaltafit minkum ahadun wamduu haythu tu'maruun wa qadaynaa ilayhi dhaalika al-amra anna daabira haa'ulaa'i maqtuu'un musbihiin wa jaa'a ahlul madiinati yastabshiruun jërëjëf jërëjëf sa ñetteel bi laaj qaalu sawaa'un alaynaa awa'azta am lam takun min al-waa'iziin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين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 وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه qaalu innama anta min almusaxarin qaalu innama anta min almusaxarin ma anta illa basharun misluna faati bi ayatin wa in nazunnaka la min alkaadibin fa asqit alayna kisfan min alsama in kunta min alsaadiqin sëñ Xaadim bàyyil xel qaalu innama ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين sëñ Xaadim فأت بآية إن كنت من الصادقين sëñ Xaadim ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين فات بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب عظيم jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Xaadim Kaffrine région de Kaffrine moo nekkoon suñu fukkeelu candidat ak benn bu ko defee mu des ñetti candidat kon mbokk yi ñoo ngi jéggaluwaat bu baax xam naa ni émission am na ci salle bi loolu waaye ñu bàyyi xel ni am na tax kii mooy ñoo xam ni ñooy àtte xam naa ni am na ci loo xam ni moom day mel ni nit ñi am nañ fuñ jeng jëm waaye nag àtte bi du yomb ñoo leen koy bàyyi loo xel bu baax a baax bismillah sëñ Moustapha Fall Matam mooy suñu dernier candidat sa laaj bu njëkk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 bamtuwaatal laaya bi inna allaha kaana aliman kabira wa abudu allaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jaari bil qurba sëñ Mustafa dimbali ñu mu leer tuuti xaw ci micro bi la xaw ma baa xaw naa ràbbaloo tuuti dimbali ñu tàmbalaata wa in xiftum shiqaaqa بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من نعله وحكما من نعلها إن يريدا إصلاحا يوافق الله بينهما إن الله كان عليما قديرا إن الله يوفق الله بينهما تيم الميكرو بي إن الله آه. إن الله كان عليما قديرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالإنسان وبذي القربى إلى مساكين والجد ولا da ngay tiim micro bi wax lu leer ci lu nga may xool وابن القربى واليتامى والمساكين والجار والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت امانكم ان الله يكون كان مقاما فقورا الذين يقولون ويامرون الناس بسم الله تعال بسم الله des na leer de ويكتم ما آتم وأنزل الكنز والميزان أموال رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وما ساء عليم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا jërëjëf macha allah macha allah sa ñaareel bi laaj wa maa yaatihim min rasulin illaa kaanu bihi yastahzi'uun kadhalika naslukuhu fi quluubil mujrimiin wa maa yaatihim min rasulin illaa kaanu bihi yastahzi'uun kadhalika naslukuhu fi quluubil mujrimiin laa yu'minuuna bihi wa qad khalat sunnatul awwaliina walaw fatahna alayhim baaban mina samaa'i fasalluu fiihi ya'rujuun لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وسيلها لناس وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استوى قسم فاتوا سحاب مبين ولا رمدتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء وسول وجعلنا لكم فيها معايس ومن لستم له برزق وإن من شيء إلا عندنا قسائنه وما ننزله إلا بقدر ما ñetteel bi laaj wa tawakkal ala al aziz ar rahim alladi yaraka xiina taquum wa tawakkal ala al aziz ar rahim alladi yaraka xiina taquum wa taxallubuka fi saajidina innahu huwa samiu alim hal unabbiukum ala man tanazalu sayaatin tanazzalu ala kulli afaakin asiim يلقون السماء وأكثرهم كاسبون وسعراء يتبعهم قاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما سلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم baax na jërëjëf jërëjëf